la bëgg a wax mooy sant leen gërëm leen les honorables députés ci kàddu yu rafet yi ak jaajëfal yi jaajëfal yooyu yépp nag dañ koy sant yàlla ba pare gën a góorgóorlu parce que gor bu ñu la nee li ngay def baax na danga war a gën a góorgóorlu am na lu ma waxul ci kàllaama tubaab waaye suñu yàgg ci bopp ministère des sports bi dépendrul ku ci njiiti réew mi muy président Macky Sall bi nga xamante ne kóoluteem daf ko delloowaat ci ñun kon bu ngeen ñu jaajëfalee dañ koy sant moom di leen wax ne tàggat yaram ci bi président Macky Sall ñëwee ci la lu bëri soppeeku parce que dañu amoon tumuranke gu métti ci wàllu fu ñu koy defee mu ñëw xam ne balaa ñoo am sport bu baax balaa ñoo tàggatu bu baax il faut ñu am fu ñu ko defee ci la commencé ci budget bi ci li ñu wax budget consolidé d'investissement mu ciy jël ay milliards di ko joxe ñu ciy tabax ay stade néew na bari na dañ ko war a jaajëfal ci loolu te jàpp naa ne fu dara newul boo fa sampee ñaari garab ku faram war naa tàccu lu bari def nañu ko fi defar nañ bay bëgg a dee am na nag lu ci sooxe parce que bu ñu defaree jox ko ab ab euh, maire walla ab président de conseil départemental deful ni président l'honorable député Mbéri Sylla def ca Louga jël stade ba di ko loué ci ay concert bi ci def loo xamante ne stade bi attanu ko mu yàqu au lieu mu wax ak njabootu sport am ne moom moo def lu mu warta def parce que ku fay concert yi da ngay fay du ko able su fekkee ne loolu defuñu ko nag dañuy jéggi gox ba song nag ministre bi wala song sax le président de la république naan dañuy réclamer man d'accord naa ñu ànd liggéey waaye bu jafe-jafe amee ku ne na sol cap bi mu ci war a sol man nangu naa sol bi ñu war a sol lañ ca def mu sooxee sooxe dinañu ko corriger waaye ñi ñu koy jagle nit war nañoo góorgóorlu te xam ne bu ñàkkee ñu sonn kon war nañoo góorgóorlu ba nga xamante ne bu ñu leen ko joxee ñu yaxanal ko ñi nga xamante ne ñooy tàggat yaram dañ leen war a sant gërëm leen parce que bi lii amee muy feebar bu métti am nañ ci taxawaay koo xamante ne feeñ na ci li ma daan wax saa su ne fii taxaw naa fi ne leen bu ñu amee chance ñun Sénégal li ko waral mooy ñi jiite tàggat yaram bi yëpp ay kilifa lañ kilifa yu mag ci réew mi yéen a ngi fi wax docteur Alioune Sarr ñu ngi fi wax président Augustin Senghor nekk un ñu ngi fi wax ñeneen ak ñeneen honorable député Seydou Guèye Seydou juuf fii am na ay honorable député yu fi jiite. lu wàllu tàggat yaram kon tàggat yaram mënatu a nekk po kese po boo xamante ne ay milliards ngay gañe kay mënatu la nekk po kese kon dañu gën a jàpp gën a jàpp bi mooy ni ngeen di sonne di wutal nit ñi maye aussi ñuy waxante su ko defee bu ñu liggéeyee ensemble dinañu trouver trouver solution euh, stade Mbàkke bi wax nañu ko wax nañ ni commencé na ku fa dem di nga xam ne commencé na waaye lépp lu ñu programmé nag dañuy bàyyi techniciens yu ko programme yi ñu topp ko ci seen planning de travail mais li am solo mooy balaa njeexitalu at mi dinañu gis lu leer ca Mbàkke gis ko feneen ak feneen foo xamante dañ fay entamé lu jëm ci liggéey bu mel noonu kon maa ngi sant ñëpp di jeexale nag ci li nga xamante ne wax nañ ko fii léegi muy wàllu recevoir ay ndaw muy ay jàngalekat yoo xamante ne sax ci ministère de l'éducation la ñu war a bokk am na it wàllu INSEPS bi ñu wax honorable député INSEPS ci enseignement supérieur la bokk day jàngal nag ay ñoo xamante ni li ñu leen di tàggat ci wàllu tàggat yaram la waaye nekkuñu suñu suñu mbiri bopp kon ñooñu nga xamante ne dañ leen di tàggat kenn bañu leen a jël man ku ma xam-xam ne ku ma soxla euh, dinaa la jël ñu waxtaan waaye nag ku ma soxla it dangay xaar ñu ne la tey la am na ñoo xam mënuñoo xaar tey waaye am na ñoo xam ku laaj nag dangay xaar ñu ne tey nga war a ñëw su ko defee ñu waxtaan boo mënta gis nag te gis secrétaire général bi mel na ni gis nga ma waaye nit ñi ñu la laajee yow buñ ñëwee ci ministère bi buñ gisee secrétaire général bi day mel ni gisuñu autorité bi te bu ministre bi newul secrétaire général ba ko wutu kon loolu aussi bëgg naa ñu xam ko te bu ñu bëggee gisee it du ñàkk dinañu dinañu gisee li ma bëgg daal ñu xam mooy xeex bi ñu président Macky Sall sumbuloo ci wàllu régler problème mu infrastructure sportive yi dinañu ko ba nga xamante ne bu ñu doxee diir dinañ war a mën a tàllal suñu loxo organiser li ñuy waxee mooy compétition international comme li euh, euh, ñu koy ni ñu ko bëggee yàlla na yàlla may nag ñu jël coupe d'Afrique comme ñaan nañ ko fi te lu war a mën a nekk la parce que euh, suñu statut tax na ñu am objectif boobu te objectif bu légitime la di jeexal nag ci wàllu làmb ji làmb ji lu ñëpp bokk dañ koy waxtaane moom moo taxoon ñu ubbi ay concertation di waxtaan ak acteuru lutte yi parce que nag ki fiy jógee wuutuñu woon ku mel ni moom parce que boo ko naroon wut juum ku fi def ñaar fukki at ak juróom benn ak juróom ñaari weer liñ lay reproché rek moom da nga fi yàgg soo fiy jógee te xarañ amu ci jël temps waxtaan ak nit ñi xam amu ci vide mën na am moo tax moom ñu ngi koy sargal te président de la république dina ko élever ci yenn grade yi du yàgg bind nañ ba nga xamante ne loolu war naa mën a ne dinañu ko feetal waaye moom itamit day continuer liggéey bi mu war a def au niveau international kon docteur Alioune Sarr ñu koy sant di ko gërëm mais di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ñoo ko wuutu yaakaar bi ñu am ci ñoom yàlla na bu mu tas parce que ñun li ñu mën mooy am yaakaar teg ko ci seen ndodd li ñuy wax rek nag mooy mënoon nañoo tëju rek génne benn arrêté ni ñi ñoo fi waaye li gën a rafet mooy bu làmb comme xam nañ yëfu senegal la soo ciy dugg même bu la pouvoir mayee nga defal sa bopp xel dalay may nga topp sa njiit ni mu defee di waxtaan ak ñëpp di ubbil buntoom ñëpp nga def ko soo ko defee gis ci njëriñ defe naa ne moom la ñu def ba ñuy ne fi ñu ngi déroulé ñu digal leen nit ne luy rëq-rëq dindi leen ko ngeen démarré année zéro parce que loolu moom mooy tax ñëpp ànd ñëpp góorgóorlu pour que effectivement ci wàllu sanction wàllu rëq-rëq ñu mën ko far honorable député du Mbow li nga wax yépp dëgg la le président Thiès moom euh, dañuy ñaan yàlla équipe national buy dajateeg nit équipe beneen buy jóge ci réew yu sedd yi ñu war a mun a dem Tamba am fale les condition conditions stade homologué dem fekk leen fa am nu ñu leen lijjantee loolu dafa baax ci dëkk sama dëkk war naa am stade bu ñu war a mën a footballer compétition internationale war nañ ko am Kédougou war a ko am fépp kon du ndakaaru rek la war a ne ndakaaru war naa am waaye tout dépend de la compétition moo tax ñuy góor góorgóorlu ci région yi pour mobiliser toutes les énergies pour am fa ay infrastructures yu mën a euh, am ay compétition internationale fi may jeexale ci Lat de Thiès parce que wax ji bari na ci wax Lat Dior de Thiès xam nga ab stade ñun dañuy def Afrique newul ne li ñu am doy nañu li ñu am bëgg nañ ci dañuy wut leneen moo tax ñu tabax stade du Sénégal waaye Sénégal aussi il faut ñuy fier ci li ñu am nit doo yootu leneen ba doo gis li nga am parce que lii mënoon na fee am tey du ñu fubal Dakar du ñu fubal Thiès mais boo ànd ak kilifa goo xam ne day anticiper day anticiper ci situation bu mën a ñëw moo tax ñu defaraat stade Lat Dior de Thiès bu ñu ko defaruloon stade Léopold Senghor mel nii bu ñu amee match feneen lañ jëm.